li tax euh, Nations Unies jagleel ko bés bi muy fukki fan ak euh, juróom-ñeent ci mois de novembre bu nekk mooy dañoo gis ne ci àddina bi am na ñoo xam ne ñi gaanuwaay sax walla wanag amul ci seen kër ñu gis ne loolu li muy jur mooy li ñuy wax nit ñi dañuy dem àll dem àll boobu nag dafa indi lu bari lu muy jur ci nasaxal wérgu yaram ci ay feebar yoo xam ne daf koy jur te àndul ak nit ki di sàmm li ñuy wax dignitéem parce que kenn bëggul di dem àll ku ci nekk da ngay bëgg di suturlawu ci sa biir kër loolu nag bi nga xamee ne am gouvernement du Sénégal jël xaalis bu bari dugal ko ci li ñuy wax assainissement maanaam setal ak sellal ndox mi setal ak sellal aussi nit ñi ñi nga xam ne noonu la ñuy suturloo ma wax rek ne ci ñu nekk di 2021 ci budget bi juróom benn téeméeri million le gouvernement bi génne pour que ñoo xam ne ñii seen loxo jotul seen ginnaaw mënuñoo tabax ci seen kër ay gaanuwaay ñu tabaxal leen ko mu nekk ci junni ak ñaat téeméer ak juróom fukk yoo xam ne yi ñu ngi koy tabax fi mu nekk ñi ci yenn région Sénégal yi waaye loolu ci budget 2022 bi président Macky Sall ne nañ koy yokk ba mu dem ci juróom-ñetti téeméeri millions yoo xam ne yi ci 2022 moom lañ ciy def te loolu bokkul ak juróom téeméer ak ñaari junni yi nga xam ne moom la ñu nar a def ci ñetti at yi di ñëw muy 92000 latrines familiales yoo xam ne yi ak suñu partenaires yi danañ ko def biir Sénégal loolu nag li tax ñu koy def mooy li nga xam ne mooy dem àll ñu wàññi ko ci suñu réew te loolu wàññeeku na fi sax suñu méngalee fi mu toll woon ci 2005 ba ak fi mu tollu fi ñu nekk nii ndaxte soo jàppee 2005 euh, téeméeri nit yoo jëloon fanweer yi ak juróom-benn dañ daan dem li ñuy wax àll amuñu woon toilette wala gaanuwaay ci seen kër soo ko méngalee ak li am 2021 téeméer bu nekk ñaar fukk ak juróom moo ci nekk ci loolu nag Sénégal bokk ci réew yi nga xam ne ci biir Afrique. ñoo ci gën a avancé ci loolu parce que am na ay réewu Afrique yoo xam ne yi téeméer bu nekk soo ko jëlee lu ëpp juróom juróom fukk ñooy dem ci àll bi waaye def nañ ay jéego yu mag tamit ci li ñuy wax assainissement ci milieu rural maanaam ci réewu kaw yi ah léegi soo ko seetee li nga xam ne moom lañ ci am ci résultat mooy ñi nga xam ne am ñu service assainissement bu adéquat ci seen kër yi téeméer bu nek lu ëpp euh, juróom fukk am nañu service boobu te loolu moom moo tax programme yi ñuy def ñu koy def donc li ñu jubloo ci bésu tey bii mooy que ne ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi liggéey ci mbirum sellal ak setal ndox mi sellal ak setal li nga xam ne dem ci toilette ak assainissement ñu mobiliser wu xam ne war nañ ca defaat ay jéego yu mag